fu fu mu dugg hmm. non dafa am fu mu dugg dafa ci am góor ñoo xam dañu am ñaari jabar hmm. ba ci ñett ba ci ñeent fu ñu aye bu dul ñoom ku góor ki seen bëgg-bëgg da ngay dégg jigéen ñi man fu ma ayee sama ay day mat sama ay day mat googu kot la hmm. kot la mooy fu ma ayee sama jëkkër dina séq ak man parce que bu demee feneen fa lu tax muy dem feneen fa di fa séq ak man du séq ak man ah. du ma perte ñaari fan ba ñaari fan laay ayee bu dee ñetti jabar six jours ngay toog doo gis sa jëkkër bu dee ñeenti jabar mën nga toog huit jours léegi góor ñi bu fekkee amoo góor goo xam ne amoo caractère wala nga loolu mottali rek la ci wax amul caractère wala góor goo xam ne dafa ñàkk fayda wala ñemewul ay jabaram mhm. fu mu jëm mhm. parce que ñenn ñi sax di nga gis ni ko góor ki di imposé ku jigéen ki jigéen ñi noonu la ñuy imposé góor ñi ni foo ayee sama ay day mat waaw xam nga luy indi loolu waaw li nga sol rafet na ko li xam nga luy indi loolu waaw mooy nit kuy def lu mu xamul mhm. parce que sëy jaamu yàlla la mm-hmm. yàlla moo ko daganal ne fankixu mm-hmm. maa taaba lakum mm-hmm. cheikh ni nga mel wutal jigéen junni mel ndax nga noppal dëgg la loolu la alxuraan soo bàyyee ni nga mel takk ku melul ni nga mel saa neex ak alaaji góor danañ àtte ba sonn yaa dëgg la dëgg la saa wala muy benn dëgg la muy benn kon liy indi nag man sama wàll day mat déedéet sëy la ci am solo mooy jur ca doom ju baax mais kii bànneex lay ut xam nga kii ut bànneex bis boo ko xañ ngeen rayante ngeen rayante moo tax yàlla ne afara ay ta man ittaxasa ilaahu hawaaw nee na am na ñoo xam ne man yàlla yëg naa ne duma seen yàlla ah. seen bakken mooy seen yàlla seen bë ñooñu waaye xoolal alaaji góor a tey nga jur doom ju mel ni Seydil Hadji Malick ndeysaan baa nga jur ko mel ni maam alaaji Ahmadou Barou Ndiéguène mhm. wala nga jur ko mel ni maam Cheikh Omarul Fouti Tall wala nga jur ko mel ni maam Xaadimu Rasuul ah wala mag ñu baax ñi fi ne maam Seydina Limaam yooyu doom mooy bànneex ci sëy mhm. maanaam mooy bànneexu takk jabar mooy tax nit a ut soxna mhm. Serigne Cheikh day wax ne bànneex bu paasewul juróomi minute. jarul yàq sa àdduna. dëgg la dëgg de. ban nga ko sëy passul cinq minutes kon bu dee yëg-yëg soose rek moo la ci intéressé ah. mais lay jur yëg-yëg ba loola am solo dëgg la ah, kon ñi wut bànneex nag ñoom ñooy xëccu naan sama kay dee mat jox ma ko ñaar yi ah. dëgg la ak yañ kay boole rek duñ yem ci jox ma ko ak matériel yañ koy booleel matériel waaw dañ koy matérialiser. Ah. Ah. ak yeneen yañ koy boole. am nay léeg-léeg saane. nga am jabar. seq ak moom muy rakku njaalo. Ah. te sa jabar la te sa jabar la waaw parce que man ci lancé boobu laa ne. waaw foofu da nga koy continuer parce que. ci fi may jeexale ci lancé boobu parce que loolu yëpp dama ko waroon a dëxëñ mais il faut ma faram fàcce ko. waaw leer da ngay gis ñoo xam ni. du ñu sëy ak seen jabar mukk te seen jabar àggul ak ñoom fenn fii. ah introduction ya ah way balaa sëy bi di am dañuy laaj seen jabar lu lu extrême ci wàllu bànneex bu ñuy njëkk a jot ba pare. mooy introduction ci melokaan bu mu war a nekkee ci ci ci ci ci ci nu mu war a nu mu war a séq ak moom. Ah. avant sëy bi du am ba pare. xanaa duñu fay lampe bi. non non waxuma sax foofu fay lamp waxuma sax foofu. fay lamp sax moo gën waaw ah. gis nga. dañuy laaj sax seen jëf ak yenn waaw yenn yu. comprendre la gis nga Mouhamad. waaw alayhi salaatu wa salaam. waaw. te daan wax ne bala ngeen joteeg seeni jabar kaf leen ñoom. Mm. ba Cheikh kontaan. Ah, waaw xàqtaay eh, soxnaam bég. mais diggante boobu. Mhm. su fekkee ne séq nañu ndaw si ëmb ca. Mhm. doom jooje mooy doom ji seddal xoli ñaari wuy moo tax ñuy tere jëkkër ak jabar saa neex bu bu jubuwul ak soxnaam diggante boobu na muñ bu mu sekk ak moom bu ñu seqee bu ci am bu jógee doom jooja mooy doom yooyu nga xam ne dañuy xaw a kors mm-hmm. day tàngal sa xol mm-hmm. parce que amin baa tax mm-hmm. amin ba gis nga li nga ñàkk fii weer dee su fay la ko yemul ak li nga tappale li nga ñàkk boo ko tegee di nelaw boo ko tegee da ngay nelaw li nga nax nit boo ko tegee doo nelaw te bu téléphone bi sonné ngeen ne baadu waaj da ko yëg. moo tax gis nga ci côté boobu Sanex wax. fi muy waxee. mooy am na façon jëflante yu yu yu yu wuyu rek. Uh-huh. jëf yu ni rek. <laughs> Ah, yoo xam ne ñoom ngay jëflante. doog a mën a. sëyeeg sëyeeg moom. mais ñun jullit lañu alaaji fóoram. dëgg la. gis nga bu ñu fàtte mukk ñaar. Mm-hmm. mooy yàlla Muhammad. lu ñu seq ak yàlla jaamu lu ñu seq ak Muhammad roy jikko mu jeex. mais mais mais marabu introduction yooyu c'est pas interdit par l'islam. lu ma ñëw. Ah. mais yiwul xam nga mag ñi nuñ daan def. Ah. am na téere bu ñuy tuddee xorra ah. bala ngaa seq ak sa jabar ñaar rakka yi nga war a julli hmm. li nga war a ñaan hmm. li nga war a jéggulu hmm. ñaan suñu borom nag ne ko sëy bii doom ju ci juddu yàlla nag ko def doom ju baax ndeysaan bokkul ak ne nga xam ne li saanix di junj ma leeral ko. di dem ut kaset bu bon. Mhm. teg ko ñaari tubaab yoo xam ne amuñu kilifa. Mhm. di ay wuyu nga teg kasetu porno. toog fii yaag sa jabar ngeen di xool la ñuy def ngeen ko la ñuy def nag ku ne xam na ko. waaw waaw man foofu laa laaj la ñuy def ku ne xam na ko. xam nga de euh, charia charia du lëndëm. dëgg la. baroo ngi rek. alaaj ma laaj la benn affaire. fii force bi fi ne. waaw bu feesee. ngeen wut oto bu koy manque. ñu jël raakol bi dugal ci biir. est-ce que su ko manqué ba pare. man mën naa koo sex. mu lu tax. salte salte su koy tuur yi dañ koy wàcc. waaw. am contact. mu jaaral fa mu jaaroon. waaw génn. est-ce que dinaa ko sex. déedéet kon li góor gi sàkku ci ndaw si. Mhm. pour mu def ko ci gémmiñam hmm. moo raakoolu oto manka bàyyam <laughs> te dañ koy laajte ah. dañ koy <laughs> benn at sobe rek lay génn ñoo yem fekkee nag da ngay dund ci yiwte acca suuf maanaam ñaar rek moo mën a am alaaj nga amee ko ni neex sa bakken baa nga amee ko ni neex sa borom tànnal ñaari muy ku góor ki muy ku jigéen jigéen bi seetal amee ko li nga xam ne moo neex sa bakken <laughs> baa nga amee ko sa borom ma bañ a fàtte li ma leen waxoon hmm. ne la am jabar séeg moom mu atte ko maanaa njaam muy amee hmm. Cheikh sa soxna mu ngi Thiès wala Dakar mu France mu France léegi daa am lu ngeen digge yaa moom hmm. ngeen ne su may ñëw la indil benn collier or nga dem ba yegg France yóbboo ko. nga soxla ko mu ni la boo ma joxul collier bi. Ah, waruma def loolu nag. def lu rek soo ma joxul lañ waxoon doo seq ak man. mu jàpp la waaw. Mhm. wala jigéen laaj jëkkëram dara ne ko boo ma ko joxul du la jox sama bopp. Mhm. Mhm. su boobaa dañuy jàpp ne góor góora dafa jënd. li moomatul. ndax ku moom doo ca fay. nit nu muy moomee kër di fa lu yëpp ne. manu nekk. loolu lañuy tuddee chibbu zina. mais am na de. Mhm. te lii ma lay wax. ñi nga xam ne dem nañ ba liggéey ba ñu bëri retraité. Mhm. lañ mënoon mënatuñ ko. Mhm. léegi-léeg boo gisee ñu guddee àll dañuy lijjanti. lu ñu jox soxna si pour mën a. am lu ñu mën a neex. kooku lañ tuddee chibbu zina pour guddi gi mën a neex. chibbu zina ci charia